bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee na paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah, bu deewee ma ak sama bi waxtaan nañ ba pare du jaay kër gi miraas bi quoi du a feebar gën a bon. waa ni gaa yaa ngi toog waa jox ma dépense ma dem marché te ñëw bala amuy gën naaj. هاي مو توري ما خيشوا عليك ما بيجوا ها عمر مين سيكاو ها عمو قول كينيا مو سرين لما مو تمت سرين لما قام عمو وين كينيا ها إذا مو في نيك نيك سرين مو توكي في دمي ابني دي فق ما ابني يك ها مو كينيا يوري نيس توت مو واتني بابا عم ها مو من ديبانس مي عمر سو لي ما توك في عمو وين كينيا يوف بين كينيا من ورا طلع كنا خمنا ني عمو دار يرو دار اه اه masalah permanen ku masalah permanen di makala Omanya cuma leng mau masak tok leng normal ku Oh, oh. Arrête de faire ça, vaurien. Est-ce que tout va bien? Tu vas aller aux toilettes ou quoi? Toilette, toilette, waaw toilette, toilette xam naa douche la rek douche moom xam naa mooy toilette. Oh, oh. Allez, on y va. n'importe quoi. Waa nijaay jox ma nag dépense ma dem yow sa dépense bi si Omar mii nga ko bëgg a yow Omar mii nga xamante ni dara day sëriñ sëriñ ju rek. ah moo ko déglu si samay doom si kan laa koy rek ah mooy sama taaw ah Issa toog ci Issa kay benn mu mën Omar war na ko mën a na ko mën ah te bu solee daalu baayam mu jot ko mu war a yor baayam Omar mii sama daal da koo xat da laa la wax jot na ko bu yàgg ba xat ko ah, waaw ma mën a porte ngayon nga ba nga inyanga-inyanga rek may amoo parang lekk. xam nga lan la nijaay nag doo ma fi yàggal ndax yow léegi génnee xaalis ak rek nga yemale Issa tukki Omar di sëriñ sëriñ ñu rek nga bëgg a jël sa dépense bi wekk ko si xale yi jox ma waay ma dem marché nag balaa gën a naaj ndax dama yàkkamte suppu kànja laa bëgg a togg te damaa bëgg mu baar waaw ah oui rek waaw ah, man am ah, dama ko ñaanal ba sonn lu ma gën a métti mooy Omar lu ma ñaanal Omar sax dama ko ñaanal Issa Omar dafa mel na ngay ñaana ñaana ñaana ñaan ba sonn mais du pause du passe waaw moom moom dafa lànk rek ni du avancé ah Issa nga koy dóoral si course gi tuuti ngay toj toj toj rek mu dem mais Omar da ngay toj toj toj wër course ba course gi tàng jër mais daa zéro. waaye xoolal ma léeg si toilette xoolal ma léeg si douche xoolal ma léeg si douche ki nga xam ne war kan laa sa basax sa tënn wuute naag sunu douche mbaar semaine ah waaw tamit lii baax na si sax mënu ma visiter seen dëkk bi ma visiter seen douche xoolal ma partenaires yi ay vert la ay vert te ñun sunu seen nuus seen partenaire nuus moo nekk vert ne ñun sunu partenaire saali sax ay gris la ay barbalain ay gris comme ñooy nekk sa prévision bu matuñoon yooyu moo nekk sunu sunu sunu sunu saali ñun si jaar kese lañ ne xoolal ma mii moom vert mi vert bi moom rafet na ne eh li partenaire la saa waaye nag dina ma damm lay lay li da mooy porte année saa retour xaaral ma woon la Sénégal di nga xaar nag saa nii się bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la rek moo la jàpp mais ça va waaw léegi nag bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñuy jaay kër gi miraas ko quoi du ñuy jaay kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw ah, bàyyi ma gën a feebar gën a bon